يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا noonu rek lay demee incha allah noonu rek bokk askan wu ci nekk dañuy jiidal islam di wamat l'islam ndax askan wu ci gën a siiw gën cee feeñ muy bokk mbokk ci njabootu maam si Ibrahima Fall sëñ Modou Moustapha Fall di woy juram askan wa ca toppaat Cheikh Issa Diagne mi nga xamante ni buntu bu yoon wee moom itam ci yoon wi moom itam di maamam di wëyjur soxna Bintu Diagne mi wëyjuram waaye ba ca topp itam nag ah, soxna Faat Sarr mi nga xam te ne si Ibrahima Sarr Njaañ mooy wëyjuram mooy wëyjuru soxna Bintu Diagne moom boo ñëwee ci paaleen ji moom war naa doon paalin boo demee Njenne ga noonu boo demee Thiarène ci jasaaka yaa xiilu Ibrahima wala ka noonu waaye ba loolu ba noppi nag. dafa doyloowul juddu ba doyloowul askan wa aw askan ko judd nag ab yóbbal la sëñ Baye Jaxate wax na ko suñu ablaat da ko ni fëxal te raw am nga ab yóbbal fax ak raw a des nde baaxi bokk di ab yóbbal na yitte ji sar moom na yitte ji daa saran ndax sëñ Modou saa Fall ci loxo si Assane Fall la ko tegan sëñ Assane Fall teg ko ci loxo Serigne Fallou Mbacké 1955 mu liggéey sëñ Fallou ba am ngërëmu sëñ Fallou ci ak gàttal daara yi mu dem yëpp am na fa ngërëmu sëñ Fallou sëñ Fallu bi mu ñëw gi mu mujj ñëw Touba boo ko sëñ bee ma ko wax sëñ Abdou Aziz la woo ni ana Abdou Aziz mu ne ma ne ko fas ma doon liggéeyloo muy ni fas ma sant ko gërëm ko ci la sëñ Fallu gëjee Touba boo ko am ngërëmu sëriñ Fallu am ngërëmu mu Assane Fall ma ko woon am ngërëmu sëriñ Amdi Xadi Fall mi nga xam sëñ moom la àndal ba wàcc ab liggéey tey kon nag sëñ Touba bu ñu mosaa ni diw diwa ko jur mu ne ana ko yar dadaa wax ne ku gën ku yar gën sëñ Aziz nag ana ko yar mi nga yaroo ci diggante sëriñ Assane Fall ak sëriñ Fallu bu mosaa ni diw diwa ko yar day wax ni ku gën ku la yar gën daal ni rabbi ni rabbi rabbi ràq nii rumasaa nii saakir noonu xam la fa ay wasii ni sëñ Fallou sëriñ Assane Fall daal ñoo yar sëñ Abdou Aziz Fall def ci moom ngërëmal yàlla mu liggéey ba am ngërëm bokk ak judd bi nga fi ko yàlla boole ci aw askan ku ñu gërëm nag ku mu gërëm nga am ngërëm Martala Fall Baye Fall euh, di euh, di taalibe ci sëriñ bi kii wàcc tey daal moom ab taalibe sëñ Touba waaye di doomu sëñ Mour Moustapha Fall waaye ñetti maam am nañ ngërëmal sëñ Touba muy sëñ Maodo muy maam Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima Sall Njaañ Cheikh Issa Dieng ndax ndeyam Cheikh Issa Dieng ko jur ku jur ndeyam Ibrahima Sall Njaañ ko jur sëñ yar kon nag kii wàcc tey moom euh, taalibe sëñ Tuwaal waaye taalibe Cheikh Fall la bu liggéey ba am ngërëm nag ndax daa añi rek ndax maam Cheikh Fall dene kuy kuy jàng loo xam ko waaye kuy liggéey sëñ Bamba loo bëgg am kon nag liggéey na sëñ Bamba ba wàcc tey muy sëñ Abdou moom sëñ Modou yar ko mu nekk ci ginnaaw rak ci ginnaaw magam sëñ Amdi Khady Fall yàlla na fi yàgg lool te wér kon ñu ngi jaale mbokki julli yëpp waaye ñu ngi jaale mbokki taalibe yëpp waaye nag ñu ngi jaale umma islam bépp ndax sëñ Abdou Aziz Fall ñëpp ko ñàkk waaye di jaale yoonu murid yëpp kon nag mbokk yi ginnaaw bi ñu bàyyi ko foofu nga xam si ne mooy mooy euh, armée lu njëkk ya nga xam ne foofu lañ doon waajale sëñ Abdou Aziz Fall egsi fi nga xam si ne mooy armée li bàqee nga xam ne fi lañ war a fi lañ ko war mu mel ni am mbooloo ko gunge bu ñu xoolee euh, oto bi bi moo nekk noonu di di dugg noonu ñu ngi fii ci euh, mu takko ko ak ay sikru la ak li yoo xam si ne mooy yëfi Baye Fall kon ñu bàyyi leen ngeen seetaan image yi lépp loo xam si ne dañu fi wadde comme xibaar rek fas leen ko yéen a jébbal incha allah ñëpp seet laa ci mën a seere rek mooy mooy ku baax la te surtout Cheikh Ibra doon na dund ak Mbaye Fall muy liggéeyal Sëriñ Touba ba wàcc loolu moom yàlla nu yàlla taal ci barke la ñu mën man ñi mujj bokkal ab liggéey bokk ci ndogo yi sëñ am di ñu na photo bu ñu may yónnee démb ci YouTube bi noo bokkoon toog ca ker ga bi ñu andee ndogo yi saa su ma saa ñëw maa ngi ma toogandoo ba ba ndogo yi jeex mu ñaanante mu yewi loolu doy na sëkk tàggatoo bu rafet yàlla na ko maam Cheikh Ibra teeru ak Sëriñ Touba ñu dugal ko àjjana te yàlla taas na ci barke